wa jaalana min ummati sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam xayril anaam wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu almalikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasula wa safiyahu wa xalilahu sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu Ali Imran TV ginnaaw bu ñu sant yàlla junni ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di wax sunu way dawlu yal na yàlla yaram leen ta taxara leen aljana yi gën a kawe barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan képp ku tawar rek yal na borom bi saafara la te saafara la wér ku am njàqare wala tiis yal na ko teggi di ñaanal borom kër gi al oustaz Alioune yal na yàlla may ko wér. suqali ko suqali daaraam suqali daara yëpp ci barke nabil Moustapha di leen nuyuwaat beneen yoon rek ki seen musatul afkar di ñëwaat ak yéen ci waxtaan yi ñu sosoon ak yéen muy waxtaanu koor mu mel ni ñu ngi ci doon fàttali suñu bopp di leen fàttalil li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci weeru koor nga xam ne mu ngi wax naan man xaama ramadan imaanan waxti saaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma taaxar yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñuy wax ci weeru koor bu nekk di wax ne ku woor weeru koor rek ànd ak ragal borom bi tabaraka wa taala nee na yàlla moo lay fay mu mel ni sunu dars bi passé ñëwoon nañ ak yéen ci xaswatu badr di ko tënk rek ndax lim ñëw ci koor waxoon nañ leen Euh, atum ñaareel ma la nekkoon waxoon nañ leen itam place ba mu nekkoon loolu ci lañ ñëwaat ak yéen allah allahu taala mu mel ni xare dara li ko waraloon rek mooy yonentu bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nekkee màkkatal mukarama bi mu fa gàddaayee jëm madinatul munawar ci ay lor yoo xam ne yéeféer yi ñoo ko ko doon moom yonent bi alayhi salaatu di ko lor ay saxaabaam ci la déparé woon màkka jëm madinatul munawar bi mu demee madinatul munawar am fa ñaari at bi mu fa amee ñaari at ci la yéeféer yi ci seen bopp dépare màkkatal mukarama ne ñu ngi jëm Saam ci seen njëg yooyu ñu daan def biñ dépare foofu jëm Saam ci seen njëg yooyu ñu daan def yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy yëg bi mu ko yëgee ne ah yéeféer kat seen alal yi ñu bàyyi woon màkka jël nañ ko ba fas yéene commencé waat di def seen ay tukki yi ñu daan def muy lii laa fi xoroshin boobu alxuraan di wax ilaa fihim rihlata chita wa sayf muy seen tukki yooyu nga xam ne dañ ko daan def di di doon ay njëg yoo xam ne euh, dañ daan indi seen bagage yu bëri di ji jaay ñoom yéeféeri màkka yi léegi nag yonentu bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yëgee lool rek ah muy leerlu ndax ku ne xam na ne kuy gàddaay doo yóbbu sa dara ndax ba ñuy dem bàyyi yóbbuwuñ dara lépp lu ñu amoon rek bàyyi nañ nekk xam na ne sooy dem dem bu bett dara du topp nee na bi ñu déparé rek ba yegg nag yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu yëgee lool rek mu yónnee pour ñu seet leerlu daal ndax loolu ñu ko ñu wax am na walla amul bi yonent bi sallallahu alayhi wa yónnee ñu seet ah ñu xool xam ne ah dégg nañ ne kat waa Màkka dinañ fi jaar dem dem sham ci seen njëg yooyu ñu daan def bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leerloo ba mu leer ko nag ci la jóg pour ñëw neew day nangu si alal yi ñim àndaloon ne yonent bi moom ku nekk xam na ne alal yitteelu ko waaye soo jabootee ay nit nag ñu nangu seeni alal nangu seeni bien ka ko nangu bëgg laa romb nag di ut lu ko yokk ah dëgg yàlla di nga lu tuuti bi yonent bi leerloo ba xam ne loolu lu am la ci la jóg wax ay saxaabaam pour ñu dem ñenn ci saxaaba yi sax la ko wax ci ansaar ak muhajir ansaar boo ko déggee mooy ñi nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaaye ñoo ko fatoon muy ñooy waa ansaar di waa medinatul munawwar almuhaajiroon mooy ñu jóge woon màkk ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm yàlla ñëw madinatul munawar léegi bi ko yonent bi waxee rek après ñoom itam ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leerlu ba leen ne am na bi waxanteeg saxaaba yi saxaaba yi d'accord pour ñu ànd nangu seen njëgg seen bagage yi nga xam ne yéeféeri màkk yi jël nañ ko pour di ci commerce mu nekk loo xam ne seen alal la yu leen lew bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àndee yenn ci sahaaba yi waxal waxtaan ceeg ñoom sahaaba yi itam d'accord njëg moom nag ki ko jiite woon mooy Abu Sufyaan ibnu Harb bi mu yëgee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg na lool rek ci la yónni benn xale mu yónnee xale bi mu dem Makka ci ñoom Abu Jahlin ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mu ngi préparé moom ak ay sahabaam pour ñëw pour nangu si bagaas yi léegi bi mu leen ko waxee ñoom itam parewuñu woon sax pour ñëw mais biñ bi xale ba mu yónni muy dam-dam ba mu ko yónnee xale bi ba muy dem dafa xotti ay yéreem di yuuxu gaañ boppam def lu nekk daal ba nga xam ne tey su yeggee rek dañuy jàpp ne kii li mu wax dëgg la waa Màkka jullit ñaa ngi leen di faagaagal muy Abu Sufyaan mi nga xam ne Ibn Harb bi nga xam ne moo yóbbu woon njëg mi léegi bi ñu leen waxee loolu am na ñoo xam ne sax dañ bañoo ne duñ dem ndax loolu avant muy am am na benn jigéen bu gént muy Atika nga xam ne euh, moom ak Abbas ñoo bokk bi mu géntee ne ko man de dama gént am benn waaye bu war fas ñëw ci dëkk bi bi mu ñëwee ci dëkk bi di yuuxu yor ay xeer di ko sànni xeeri nag fu mu dal rek kër gum mu dal rek génn nga ñëw ci kaaba gi léegi bi mu waxee loolu euh, bi mu waxee loolu waa ji mu ne ko ah bu mu ko waxee Abbas mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi kooku itam dem wax ko benn xaritam xaritam wax ko wax ko Abu Jahlin mu ne ko yéen daal da ngeen fas yéene daal su li paasee rek ngeen def leneen maa ngi lay wax ne de sa jigéen bii li mu wax feeg ñetti fan su amul rek dinaa bind ci kaaba gi ne yéen daal ay wax ko lu dul dëgg ngeen ñu ne waaw bi defee noonu rek. ci la xale bi ñëw loolu am ñu ko defee ci lañ déparé ñoom itam màkka ñëw ne ñu ngi ñëw pour xeex si ndax lii xeex si bi mooy dañu ñëw pour ñu nangu seen njëg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn génn doon pour xeex dafa génnoon pour jël ay bagages bagages yoo xam ne ay saxaabaam ñoo ko moom loolu mooy yëkkati woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la xeex bi demee ba ñëwee jullit ñi ñu ngi nekkoon comme ni leen ko waxee ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñaari fas juróom-ñaar fukki gëlëm yéeféer yi yor ay junney bagage ay junney gëléem ak yu kenn xamul ci ay fas yoo xam ne yu limoo limu lañ loolu mooy li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne bokk na ci xare badar biñ ñëwee yonant bi sallallahu alayhi wa ay saxaabaam ne ko yonant bi dañ lay laaj génn bi ñuy génn bu fekkee yàlla moo la digal rek ñun dañuy pare pour ànd ak yow ñun loo def rek gërëm nañ ko ñun duñ la wax la waa kër Moussa ya waxoon ne ko ñun demal xeex yaag sa borom ñun ñu ngi lay xaar déedéet ñun dañ la naan ñun ak yow ñooy ànd kon loolu mooy li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne ci e, batar la bokk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doxalee ak Abu Sufyaan moomu ak yéeféeri màkk yi noonu lañ def biñ defee noonu ah kon incha allah ñu ngi jàppaat idda beneen yoon incha allah suñ del siwaatee demaat ci bu neexee yàlla ak yonent bi di wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilah rabbil alamin